billahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim fu waay mën a nekk ñoo ngi lay ziar di lay jàmm gudd fan wér-gu-yaram xéwal gu yaar def na nag àllaaxira rawatina yéen ñi amoon ci Daaru Salaam si faaw ñoo ngi leen di ziar baax a baax a baax di wax ne Daaru Salaam moom njëriñal doomu aadama yi rek ko tax a jóg kon ñoo ngi leen di bu baax a baax fu waay mën a nekk tey nag dañ leen andil quelque ay njëriñ rek euh, bi ci jiit nag mooy doomu aadama bari na ñoo xam ne liñ ñàkk rek seen ñaari waajur rek moo leen ko xaj wala ñàkk topp sa ndigalal ñaari waajur ndax ñaari waajur nag yéen di saa seen wax ci ne ne wax na ci ne ridallaahi bi ridal war a day ngërëmul yàlla daal mi ngi ngërëmul ñaari waajur kon ñaari ngërëm yooyu dañoo duggante bu ñaari waajur gërëmee rek ñaari suñ borom tabaaraka wa taala gërëm na waaye bu suñ borom gërëmee te faaw ñaari waajur gërëm kon noonu lañ duggante ñoom ñaari ñooñu kon kenn ko de sa ñaari waajur te fu mu jamono ji bari na ñoo xam seen ñaari waajur dañuy jiitu waaye loolu dama waxoon dama koy wax sax ci def ko benn kii bu ndaw rek pour maayaale ko ci léegi ñuy julli julli gi nag mooy da ngay ñaari rakkaat yi da ngay naafila boo ko naafila nga jàng fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon alhaakum takasur benn yoon xul wala waxat fukki yoon ak benn kii koo def nga ne allahuma inni nawaytu allahuma inni salaytu xaasi salaata yàlla julli naa julli gi yéene ci sama ñaari waajur wala yéen ci sama mbokkum dëkkandoo wala yéen ci sama rakk la moo xam sama mag la nga yéen ko ci koo ci mën a yéen rek ca saa suñu borom dana yebal junniy malayka ñu dem fa xabram ba toog fa di ko jégalu suñ borom tabaraka wa taala ba bisu penc ñu ànd ak moom du gaajal kon julli ko am def tamit suñu borom dana la ay yiw lu ni lii la jant bi tiim te dana tabax tamit junniy kër ci àjjana yow mi am na solo te jéggal la kon ba dañuy wax ne ku bëgg kattan da ngay jàng yaa xaajiru trois cent cinq fois képp ku koy saxal ci bis bu nekk suñu borom du la xañ kattan mukk yaa xaajiru yaa xaajiru lii nag ngay nekk ca innahu ala rajihi la xaajiru la nekk képp koy sikkar daal yaa xaajiru trois cent cinq ñetti téeméer ak benn ak juróom suñ borom dana defal kartan yow mi bëgg bàyyi rek del si kar yaa wudud wudud nag wela muy ñaar fukk de ko si lu bari ñaar fukk ndax wudud waaw gi 6 la del gi 4 beneen waaw gi 6 beneen beneen del bi 4 muy bax wudul nag boo neexee nga sikkar ko tamit 66 muy limam allahu boo ko dee def lu bari suñu borom daan la jox bàyyi rek incha ki nga xamante ne daa bëgg koo gis wekk ko doomu adama ndax wekk nit tamit am na ci solo lool ci jamono léegi sax ku bëgg nag ku la gis wekk la da ngay wér du samadu yaa sama samadu sama samadu yaa samadu yaa ngi moom yaawu ni daal la rek kuy booy woni pour nga jox ko cër yaa ngi loolu la ci signifié mooy yaawu ni daal yaa samadu 104 nga koy liggéey téeméer ak ñeent sàdd 60 la mim 40 del gi boo koy def suñu borom moom it daan tax nit ñi wegg la ku bëgg a ubbeeku nag moom it da ngay yaa waxaabu yaa waxaabu yaa waxaabu yaa waxaabu nga koy sikkar téeméer par bis nga koy saxal tamit nag suñ borom dana la ubbi dana jox cër kon yooyu te yaa waxaabu bii ngi tamit sax dafa jàpp benn rab àll bu ñuy wax saaw yaa wax waxaabu moom la tollool saaw boobu fi mooy ni mag ñi dañ ko daan dégg bi di ko def ci seen kër ndax déggi saaw yooyu kër gu nekk wax nañ ne dana naat borom-xam yu bari dëppoo nañ ci kon jar na mu tamit def sa biir kër muy déggu saaw mi ngi tolloog tur yàlla bi ñaan ak yaa waxaabu te day ubbee ak yeneen fi ma boo jëlee samadu bi mi ngi tolloog tur boobu ñoo xam nem-nem te nem-nem lu baax la ci estomac dana koy faj fi mu nii yaa wudut boobu mi ngi tollook sap-sap wudut boobu di fay mi ngi tolloog saab saab kon tur yàlla yi nag bu ne ci nekk nag am na noo koy tëggee te am na garab bu mu tollool boo ko tëggee noonu nag wut garab ga boole ko moom suñu borom naka jël saafara daloon daal saafara lool kon loolu mooy la am solo loolu xam naa nag ñu may leen génn julli yónni koo xam ne tamit maa ngi da leen ko julli muy julli koo xam ne nii sekkaral boo ci julli yónni mooy lépp yàlla moo ne ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu kon julli ji yonent bi sallallahu alayhi bépp doomu aadama te koy julli ji yonent bi sallallahu alayhi wa dana yokk kon julli gi nag ngi nii salaatan allahumma salli ala sayyidina muhammadin salaatan tusaxiruna biha kulla sayin yaa man bi yadihi malakutu kulli sayin julli gi ku ko saxal téeméer yoon bis bu nekk suba ak ngoon ci kàttanu suñu borom duutoo manqué dara jënd bi déggee julli gi sax nga xam ne moom tax julli jënd bi tamit lu bari la ay million la waaye julli gi moom dañ ko ca tànn ne ku ko julli jënd bi sallallahu alayhi wasallam secret bu daan yor di ko jëfandikoo képp ku koy julli saxal ko suñu borom dana sotti ay xéewal daana defal wér daana defal teraanga daana defal mucc àdduna ak alaxira salaatan tusaxiruna biha kulla sayin yaa man bi yadihi malakutu kulli sayin allahumma salli na nga jiital ala sayidina muhammadin salaatan tusaxiruna biha kulla sayin yaa man bi yadihi malakutu kulla sayin kii ko ko saxal téeméer yoon suba ngoon ci kàttan suñ borom suñ borom daana defal xéwal daana sotti wér ndax nag ñuy ñaan ñaan nag mooy lépp yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma wuyu leen te yàlla lim yor da maye rek te ñaan yàlla li ci gën a gaaw mooy jaare ko ci yonente bi sallallahu mooy buntum jub nabiyuna babil huda sëñ Tuubaa wax na ko sax nee faman yusim bi sallallahu alayhi wa sallam yonente kenn du ko isaab ëllëg kon na ko màggal wala na nga ko warmaal te màggal ko kon loolu lañ doon wax tey ji ci euh, alxames ji alxames nag guddi la mooy guddi ak ajuma loo ci mën a def ci salaatu wala nabi bu baax na ndax guddi ak ajuma googu mooy alxames ji boo ci jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi da ciy jot directement waaye yeneen bis yi lu altine ak alxames yeneen bis yi boo jullee am malaakaay ne xabru ba rek di ko ko jot yi waaye bu fekkee da ngaa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis guddi ajuma muy alxames ci guddi wala di bëccëg di altine guddi ñooy ci doole boo ci rek jënd bi moo jël boppam directement yow mi ko mu ñaanal bu dul loolu nag malaaka maa koy jël jox ko ko ne diw doomi diw ak diw moo julli ci yow ci lii ci yonent bi sallallahu julli ci bi nag moom la mag ñëpp yéegee baraw sëñ Tuubaa nee na juróom-benn bi yëpp moom da ci daan julli ci yonent bi salaatu sitta fil madi sitta kon julli ci bi sallallahu alayhi wasallam ku ne war na ko farataal ku ne war na ko jël nag muy ngànnaay julli ci yonent bi sallallahu alayhi mooy salaatul ndax julli ci yonent bi li ma la wax léegi ay millions la allahumma salli ala sayyidina muhammadin naasiri xaq bil xaq wal haadi ila siraatil mustaqim wa ala alihi xaq xadari wa miqdar azim lii boo ko saxalee tamit suba gu jot ginnaaw boo julli suba pare téeméeri yoon ci kàttan suñu borom dana la sotti ay xiiwal dana la may wér dana la tamit moom fexe nit ñi tamit dañ la bëgg kon julli jënd bi mooy lépp Muhammad nag mooy solution àdduna bi kon ñoo leen di siyaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér-gu-yaram xéewal gi ak di mu ànd ak àllaxira wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala